dëkk bi bu ñu nekk dafa xaw metti euh, l'agriculture moo fi nekk ak napp ak càmm mooy agriculture au sens large bu ñu ko waxee tënk nañu lépp mais si domaine yooyu yëpp ñuy liggéey dañuy xëy di daan suñu doole mais amuñu accompagnement kon metti na te président manifesté na volonté pour accompagner les jeunes du Sénégal dootale une enveloppe de 400 millions 400 milliards si jeunes Sénégal yëpp kon pourquoi yi mën na ci am amul benn jeune bu mas am financement fii leader yi ñu fi am yi jàppale wuñ ñu ku si nekk yaa ngi fekk nekk sa kër sa dakaar tabax sa kër gérer say affaire personnel euh, ni ñu fi nekk ñi di sonn chaque campagne ñu ñëw jox leen 5000 francs benn t ñu voté leen après mu jeex ku ne dem si yoon loolu moo tax ñu ni nañu créer forum conscientiser nit ñi conscientiser population bi ku si nekk nga xam li nga gëm noonu nag bu ñu fi jógee am nañu dossier physique bi nga xam ne DER la jëm am nañu dossier numérique bi nga xam ne après daañu remplir projet yi physique bi ñu jël ko yóbbu ko jox ko ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yeewal waaw maire bi nu nga ko wax ni que na xam lan mooy priorité mooy mu jàppale ndaw ñi loolu mooy priorité bi gars yi seen zone industrielle transformation patate bi am na fii nii mais amuñu usine bu ko bu ko transformé diviser bi boo gisee jeunesse moom moo fi mujj moom moo diviser jeunesse bi loolu ñu ngi ko wax ne fii ñun fii ñëpp ñëpp ay doomaanu gars la ñu sen yaay fi la dëkk seen baay fi la dëkk moom genn wala mo fi bok fal nu ko mer mais nañu mu top askan bi sinon nun ay kat lañu duñuy bañ man nun de mënul si nun yota lu ko jar jaral nañ ko ba gaay développer parce que bu buy metti mom du ko yegg mi nga Dakar nun no fi dëkk bu metti bi day am nun noo koy sentir mom du ko sentir wala wa deugal walu dëgg kon donc Abdou khadane ndjay ñewal nga dimbale sa jeunesse même bu dé 10 personnes la ñëwal nga jëmbale sa 10 personnes yooyu parce que 10 personnes yooyu ñoo la sañaloon ba nga toog loolu mooy suñu objectif tey président de la république tamit ñoo ngi lay ñaan nun sa ay sa la ñu sonn na ci yow di la jàppale kon bàyyi nu xel nga gestu jeunesse su gaay Asmali Diop président conseil communal de la jeunesse moo koy wax responsable politique élection bu nekk ñu dugal suñu loxo ñii fexe ba nga gagné 65 pour cent ñii 75 pour cent kon bëgg nañu nga jàppale ñu. ndaw yi nag du war moom laa leen di wax. nañu bañ ku leen tënk seen liberté nañu am seen indépendance bopp euh, ki fi ñëw ki fi ñëw pour jàppale leen na leen jàppale mais ki bëgg a tënk nan ko bañ ndax ndaw boo amul liggéey mënul ga dignitéem du yomb mu téye dignitéem du yomb kon ndaw ñi nañu taxe fexe am si nuñu yëngu pour mën téye suñu dignité loolu nag mooy projet yi nun lu ñu war luñ ci mën daan ko def pour mën leen accompagner